wa ala alihi wa asxaabihi ajmain rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma mbokku àdduna mbokku jullit yi ñoo ngi ñëwaat di sant borom bi tabaraka wa taala ci ay xéewalam sant goo xamante ne si amul fu mu di ñëwaat di julli day salmal ci sang-sang yi sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa këram ak ña toppoon ci ñoom ci rafetal ñëpp ba ilaa yawmi diin alhamdulilah tey bu neexee yàlla ñu bëgg a ñëw àndaat ak yéen pour continuer suñu jataay yooyu nga xam ne ñu ngi ko doon def ci xam bi ñu naan tajwid wala sax ñu tuddee ko ñàngum tajwid di ko jaarale ci chaîne bii nga xam ne mooy Daara Koki TV di sant ñi nga xamante ñi nga xamante ne si Eh, saa su ne ñu ngi koy topp di laaj di si commentaire di jariñu ñëpp ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax am na ay tur yu si ràññee waaye bëgguñoo lim mu topp jataay yi jiitu woon te tolloon ci juróom-ñaar tey incha allah kon suñu jataay bii mooy juróom-ñetteel jataay ci ñàngum tajwid ñu ñëw nag ci beneen bunt boo xam ne bunt bu bees la yaakaar naa sax mooy wala sax amul yaakaar naa mooy bunt bu mujj ci atte yi nga xamante ne si moom lañ doore woon muy attey nuunu saakina wa wiin nuun googu nga xam ne dafa nekk ak wiin googu nga xam ne léeg-léegi boo koy jàng de ko fa sentir boo koy xool ci ak mbind doo ko fa gis waxoon nen am na ñeent atte yoo xamante ne si moom la am ndax nuun nga léeg-léegi ak tanwin nga lay topp ci seen gannaaw ci ay xaraf xuruful abjadiya nga xam ne ñaar fukki araf araf la ak juróom-ñett ñeneen la nag juróom-benn gis mu ñëw ci ginnaaw nuunu saakina muy xuruf izhar atte ban a jox mooy atte izhar ñu yoo xamante ne si nee nañ la foo ko gis ci ginnaaw nuunu saakina wa tanwin rek at atte mu amee mooy at attey idgham mooy xurufu yarmaluun ak lan sa wax yëpp duñ si ñëwaat ñu ñëwaatoon nag ci beneen jataay boo xam ne ñëwoon nañ leen ci benn araf boo xam ne neen la saabu saa boo ko gisee ci ginnaaw nun saakina wa tanwin rek bay boo nga xam ne at attey boobu lañ tuddee attey iqlaab kon mu mel ne tey suñu jotaay bi la des ci xuruful abajadiya moom la ñuy gis fii muy attey ixfa léegi la des nag xuruful abajadiya 28 ñaar fukk ak juróom-ñett boo si mooyee treize mooy juróom-benn xuruf izhaar yi ak juróom-benn xuruf idgaam ak benn xaraf iqlaab bi loolu du treize ñaari six du douze nga boole si benn muy treize treize mooy ko ci vingt-huit dafay des mooy quinze xaraf fukki xaraf ak juróom moo des ci xuruf abajadiya yooyu nag moo tax ixfa moom moo si ëpp ay araf atte ixfa bi yi nga xam ne moom la ñuy jàng tey ixfa bu ñu ko waxee mooy loo xam ne dafa nëbbu den si ñëw mooy ñeenteel bunt bu mujj ci attay noonu saakina wa tanwin fukki araf ak juróom den leen ko bindal ci tabla bi ngeen gis yooyu de mooy yi desoon ci xuruful abajadiya saa bu ñëwee ci ginnaaw nuun gu nu nekk wala tanwin ah boobaa bu ko attay izhar de waaw bu ko joxati attay idgham de dugalante wala ngay feeñal nun nga tanwin nga wala nga ko jox attay iqlaab di wëlbati araf di fa teg beneen araf déedéet waaye lañ koy jox mooy attay ixfa la ngay nëbb nag ah moom la ñuy tey ji juróom araf fukki araf ak juróom yooyu noonu mooy yan mooy gisal as-saad muy benn ñaareel bi mooy az-zaal deel ju tooy deel goo xam da nga ko tomb buñ ko tombul deel la waaye buñ ko tombee daal la ñetteel bi mooy xaa cuun wax cuun ñetti tomb lay am bu amee ñaar rek nekkatul cuun taa lay doon ah ñeenteel bi mooy lan mooy kaaf takk leen bu baax te xool ko juróomeel bi mooy lan mooy aljiim kon am nga juróom te fukk ak juróom lan wax juróom-benn mooy ashiin shin su tooy dafa am sin soow ak shin su tooy buñ ko tombee rek sin su tooy la buñ ko tombul sin soow juróom-ñaareel bi mooy alqaaf alqaaf ah juróom-ñetteel bi mooy assiin sin soow juróom-ñeenteel bi mooy addaalu addaal deel wax ñu gisoon neen sànq ak daal del ju tooy dafa am deel ju wow muy buñ tombul ak daal fukkeel bi mooy at taa at taa fukk ak benn bi mooy razayn zaay fukk ak ñaareel bi mooy faa alfaa u fukk ak ñetteel bi mooy lan ad daa addaadu daad fukk ak ñeenteel bi mooy azaa azaa am na buñ tëb sànq mooy attaa attaa kon boo boolee yooyu muy fukki araf ak juróom yi desoon ci xuruful abajadiya abajada hawa zabam jeex xuruful izhar njëkkoon naa génn xurufu idgham topp si xarful iqlaab topp si léegi nag fukk ak juróom yi moo ñëw fekk si fukk ak ñett léegi nag mu ndar kepp nag léegi daanaka am li jëm ci attay noonu saakina tan wi moom la sa ñëw ci ay araf yëpp gis nga ko léegi fukk juróom yi leen mujj a siteel sànq tuddal leen ko saa bu ñëwee ci ginnaaw nuun gu nu nekk wala tanwin ah, at tey ixfa nga koy jox de ixfa nag mooy lan mbokki yi ixfa buñ ko waxee ci wàllu loxo mooy loo xam ne dafa nëbb moo tax léeg nga gis ci téere yi ñu ne as satru mooy loo xam ne dafa dafa nëbbu ba mënoo koo gis lu sutrowu waaye nag buñ koy wax ci maanaam buñ la koy xamal ci manko bi nga xamante ne si ñii nga xam ne seen xam-xam nàcc na ci xam-xamu tajwid niñ ko xamalee mooy lan dan na la kat ixfa dafay mel ne buñ la ko doon wax mooy day mel ne yow araf bi danga koy tudd ci anam goo xamante ne si dafa nekk ci diggante al izhar ak al idgham li leen liñ leen liñ waxoon tamit ci izhar moom lañuy waxaat fii mooy fukki araf ak juróom yooyu noonu léeg-léeg mu ñëw ci nuun as-saakina dajeeg moom léeg mu ñëw at tanwin dajeeg moom waaye nag sa boo koy xool ci alxuraan fekkee ci nuunu saakina moom mën naa ñëw nekk ci benn baat mën naa ñëw nekk ci ñaari baat mais tan tanwin moom benn baat rek la mën a ñëwee buñ joxee mbokk mi mu jàng amul xadim dañu indil misaal boo xamante ne si nuun gu nu néeg la tela top ci ginnaaw nekk bokk ci araf goo xamante ne si euh, bokk na ci xuruuful ixfa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون أحسنت وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمن يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ما شاء الله فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزي وهم لا ينصرون صدق الله العظيم ما شاء الله تبارك الله أه دقن mbokk mi lim jàng jazahullahu xayran ahmadul xadim ala ma tafaddala bihi min alqiraati aljamila bi riwayati warshin an alimaami nafiin gis ngeen ne ëndil ñu nañu ñett barab yim jàng yoo xamante ne si araf bi ñu siy teel muy soit soit gi dafa ñëw ci ginnaaw nuun saakina nuun gu nu néeg gi ak ci ginnaw tanwin gi te indi nañu ñett façon yëpp nuun gi nga xam ne saat gi ba mu ñëwee ci ginnaaw dafa nekk ci ñaari baat kon li mu wax an sadduukum ak tamit in yansurkumullahu nuun gu nu nekk goo xam ne sot moo topp ci ginnaaw te saat xurufu ixfaa la bi mu paree nag fi mu ko jeexalee mooy indi nañu ah, tanwin goo xam ne la sa topp muy saat riixan sarsaran kon fii lim jàng lii rek la wan a jàng tey ixfaa rek la mën a jox fii wanu fee joxe attay izhaar wala attay idgham waaw dafay mel ne kuy jàng ci diggante izhaar ak moo tax bi mu ñëwee jàng ci aaya bi njëkk jàng ci aaya ali imran in yansurkum allahu fala ghaliba lakum in yansurkum allah in yan in ii gi moom ko idgham la weesoo nañ ko li ñu cité mooy yansurkumullah da ngay ibqaul gunna da ngay gunna gi da nga ko fay ko fay njëkk bi yansurkumullah bul ñëw di izhar naan yan wala ngay idgham fi sax idgham jiddan waaye da ngay ixfa ixfa in yansurkum allahu fala ghaliba lakum kooku misaal nuun gu du néeg la goo xam ne la ñëw ci ginnaawam sallata fi kalima im pare jàng na tamit wala yajrimannakum shana'aanu qawmin an sadduukum an almasjidi alharam ci surat maida booy warsh wala nga أن صدوكم ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم أن أن صدوكم fexe ba bàyyi fa gunna ga ci araf gu njëkk gi nga defee nun nga nga ixfaa ko nga fii nun nga la koo xam ne la ñëw ci gannaawam sood la te fii kalimatayn da nga naan an ne saddukum ñaari baat kon atta bi mu jàng foofu macha allah bu bu jaar yoon la fi mu ko mooy atte mooy mooy misaal bi mujj a jàng ci suratu fussilat fa arsalna alayhim riixan sarsara fa arsalna alayhim riixan sarsara riixan sarsara tanwin la boo koy xool ci bind doo gis noonu waaye boo ko jàngee mu feeñ riixan la moo ñëw ci ginnaaw tanwin gi saad kon la mu waxoon ne sif zaatana gis neen xarfu saad ci ñett misaal yëpp nii nga koy qiyaasee nag ci mboolem barab yim ñëw ci alquran ci ay misaal kon nan ci nan dem ci zaal sif za nañ jël xarfu zaal ci ay barabam ñu jox mbokk mi mu jàng euh, cheikhuna xumba mu jàngal ñu ci ay barab ñett barab naam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 بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب ما شاء الله ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حسر علينا يسير بولكو يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير رق الراء سراعا سراعا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير ما شاء الله ما شاء الله أه الحمد لله شكرا على الأخ شكرا للأخ على تفضله وعلى قراءته الجميلة yéena ko déggan ñoo ko déggandoo jàng na ci anam gu set ci biraayatu warsh an imaam Naafi indi nañu ñett misaal ñaari misaal yi ci nun goo xam ne la su topp daal la daal bokk na ci xuruful ixfa benn misaal bu njëkk bi da indi mu nekk nun goo xam ne dafa dajeeg daal nun gu lu nekk goo xam ne dajal na dajal naag daal ci benn baat comme ni mu ko jàngee ci euh, barab bi nekk ci Ali Imran jeexantal bi indiwaat nun goo xam ne dafa dajeeg daal ci ñaari baat indi tanwin goo xam ne dafa dajeeg daal ci ñaari baat min zakarin aw unsa min gis nga foofu ixfa moo fa am mooy da ngay nëbb nun gi bu mal ne da ngay jàng diggante izhar ak bu mel ne da ngay feeñal bu mel ne dangay ngay dugalante min bul feeñal nag ndax boo feeñal da nga naa min déedéet da bu ko defee gunna gi dafay des nga feeñal ko bu baax baax a baax ci araf bu njëkk bi bi mu paree jàng na ci suratul raat ci benn barab lam fa jàng mooy innama anta munzir sànq dama dama dama juum lim njëkk jàng misaal bi nuun goo xam ne dafa dajeg zaal ci ñaari baat ci ñaari baat min zakar min zakarin aw unsa min gi dafa ñëw zakar doo ko ñëw dama juum sanq bàyyi ma si xel sax waaye misaal yum jàng ci beneen barab bi dafa jàng nun goo xam ne dañ koo néeg te la stopp daal la te ci benn baat benn baat mënoo leen separe إنما أنت منذر ولكل قوم هاد mundir moo ñu tax a jub foofu xoolal dane mundir nun gi feeñalu ko waaye dugalantu dugalante ko waaye bay na bay ci diggante bi la ba noppi dafa nëbb nun gi ba noppi gunna gi feeñ na fa ci arafu njëkk bi te daal moo ñëw ci ginnaaw nunu saakina nun gu nu nekk kon loolu àtte bii rek la fi joxe mooy àtte ixfa fi mu jeexalee mooy barab bi mu jàng ci suratu suratu ban la sax qaaf ah suratu qaaf naam suratu qaaf siraan fi mu taamale yawma tashaqqaqu lardu anhum siraa boo taxawee moom atte boobu waxutuñ ko moo tax bi mu jàngee indi feeñul waaye moo tax ma ne ko mu jàll waaye boo doon jàll nag tanwin gi day ñëw dajeeg ak zaal يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير يوم تشقق أم كجان يوم تشقق يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير سراعا ذلك tanwin la ngoo xamante ne si la ñëw ci ginnaawam daal la te daal ci xuruf ixfa la bokk kon fii atte bi fii yelloo mooy atte ixfa da ngay nëbbu noon gi léegi ñi del ñi tegu ci ñu araf bi si ndax waxoon na leen sif za sana kon nañ jël cuun mën nañoo taxaw foofu sax yaakaar naa ndax temps bi dafa xaw a kii man doon wax juróom waaye juróomi sax dafay bëri nañ jël araf boobu ta yam foofu muy saa ñu jox axuna alfadil alxaafiz Sëriñ Muxtaar Naarloo mu jàngal ñu ñett barab yoo xam ne dañu indi misaal misaalu saa nuun goo xam ne dafa néeg te la sa topp nekk saa cuun moo nit si ñaari misaal fi mu nekkee ci benn baat ci ñaari baat ak benn misaal boo xam ne tanwin la goo xam ne la sa topp lan la suun ah, cuun muy as saa kon ñu jox ko incha allah fal yatafaddal بالقراءة مشكورا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم macha allah tabarakallah jazallahu xayran axaana alfadil sëriñ muxtaar ala ma qaraa bihi eh, min ci ñett barab ñaari barab yu njëkk yi eh, gis ngeen indi goo xam ne nuun gu la te la sa topp nekk sa bi mu nekk misaal boo xam ne nuun nga dafa ñëw dajeel saaga ci benn baat wala ci ñaari baat bi mu njëkk a jàng bi si topp nuun nga ak saaga dañoo daje ci benn baat bu njëkk bi ci ñaari baat bi si topp ci ñaari baat ci benn baat mooy ci bi mu jàng ci suratul furqaan bi ko jeexalee mooy bi mu ñëwaatee ci sa baqara ci même page jàng tanwin ngoo xam ne la sa topp lan la daal te daal min xuruuf ixfa dégg ngeen ko mu ne lan min samara min samara كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا من ثمرة رزقا li ñu yitteel mooy min samara nuun gu nu néeg la goo xam ne la sa topp araf la bu bokk ci xuruuf al ixfa fukk ak juróom yooyu muy asa moom la waxoon zif sa sif za sa sana kon nun gi dafa dajeeg cuun ci ñaari baat foofu mu jox koy atta ixfa beneen bi tamit ci suratul furqaan indi na misaal goo xam ne nun gu nu néeg la la topp nekk saa cuun ci benn baat moo tax mu jàng ne wa qadimna ila ma amilu min amalin fa jaalnaa fajacalnaahu habaan manthura manthura xoolal nun gu nu néeg la goo xam ne dafa topp saala cuun te saa bokk na ci xuruufu ixfa moo tax dafa nëbbu nun gi fi mu ko jeexale mooy inna tanwin tanwin saa boo koy xool doo gis foofu nun waaye boo ko jàngee mu feeñ nga dégg ko dina tanwin goo xam ne stop saada mooy li mujj a jàng ci ci ci ban saar la sax même ci suratul baqara mooy bi mu jàngee ne huwa alladi xalaqa lakum ma fi l ardi jamica ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم boo taxawee du feeñ boo ñëwoon taxaw ci jamia du feeñ waaye boo doon taxañ baat bi boole ko huwa alladi xalaqa lakum ma fi lardi jamian thumma stawa jamian thumma stawa tanwin nga loo xam ne stop lan la sa tanwin gu dajeeg saa ci benn ci ñaari baat atte bi yelloo foofu rek mooy atte ixfa mooy da nëbbu araf ba ngay tudd danga nga koy nëbb araf nun nga nga defee mu mel ne da ngay jàng diggante izhar idgham ba noppi nag xunna gi des fa bu baax a baax mu feeñ jamian thumma kon mbokk yi ci gàttal lii lan leen bëggoon a indil tey ci bunt bii nga xam ne moo nekkoon bunt bu mujj ci bunt yi atay nuunu saakina wa tanwin kon hada wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain